bismillah ah, jërëjëf euh, euh, ma wax kunta boobu <laughs> kuta aywa soxna Fatima Aïcha kuta waaw soxna Fatima na yàlla def ko Ahmed Gaye na jege si Ahmed Gaye na jege si Ahmed Gaye bu daanelee Cheikh Tidiane Gaye moo ciy tege Cheikh Tidiane Gaye Ahmed Gaye après Cheikh Tidiane Gaye kon bismillah Ahmed Gueye jërëjëf Ahmed Gay di doom ci eh, Bouda Gaye ak Ramatoulaye Diack Sidi Gaye mooy parrain bi incha allah bu ko defee dañ ci def Cheikh Tidiane Gay di doom ci Serigne ak Adama Mbodj ñi ngi ko parrainé Imam Matar Gay bu ko defee Cheikh Tidiane bismillah Absa Sen mu الشیطان الرجیم بسم الله jërëjëf Cheikh Tidiane Gueye yàlla na yàlla def la mag te tabarkeel sëriñ daara sëriñ Jili nee na seex Tidiane Gueye mii woy juram waay juram daa am taxawaay yu mag a mag a mag a mag yu rëy rëy ci daara ji moom xaarul daara ji soxla na wala soxlawul moom chaque jour day ñëw di nemmeeku daara ji di jàppale njaboot gi mi ngi ciy def alalam ak ñaqam ak coonaam lépp mi ngi koy def ci daara ji yàlla na borom bi subhanahu wa taala fay ko te barke ko liggéeyam li nga ciy def Hasanat waye mu yok ci yow di yokku ci bir njabot gi fi am na barkeel kon bu ko defé dañuy dem ci xalé bu ñuy wax Absa sen, Absa sen di dom ci biran, ana biran sen biran a ngi sen sëñ biran Seen ak Ami sek <laughs> biran ragalal yalla nga tek fi sama xaliss biran nga lamb sa poos ragal yalla yow sama xaliss bu ko defé wa xaar ma ñew ci Absa mi ok absa sen di dom ci sen ak ami sek ñi jai ko parrainé mariam ndiaye jeme sen nday jeme sen mariam nday jeme sen moy parrain inshallah allah bu ko defé ñu diglu absa inshallah allah billahi minash فأخذ dem bàyyi ma ngi baatare fii di ci taabal ji de moom <laughs> sëñ a ngi nii di baatare fii ci taabal jazakillahu xeyran sëñ Birane ñu ngi ci taftal xale bu ñuy wax Fatoumata Ndiaye Fatoumata Ndiaye di dem ci Babacar Ndiaye ak